ñett seytaane ak malaaka yi
salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu jàngoon nanu aaya bi jëkk ci mbind mu sell mi tey wax ne ca njalbeen ga yàlla sàkk na asamaan ak suuf gisoon nanu ne lépp am na njalbeen ba mu des yàlla ca njalbeen ga dara amul woon amoon na kenn rekk ku doon dund kooku moo di yàlla moom donga nekkoon ca njalbeen ga yàlla mooy boroom alaxira yàlla màgg na te amul moroom amul njalbeen te amul mujj amul soxla amul àpp yàlla xel la te mën na nekk fépp ci waxtu wu nekk moo tiim lépp ak ñépp feesal na lépp gis na lépp xam na lépp kenn rekk la yàlla màgg na moo tax mbind mu sell mi ne moom kenn jagoo dund gu sax dëkk ci biir leer gu kenn mënta jege moom mi nit mësula gis te nit mënu koo gis moom kenn yelloo teraanga ak màggaay ba faw amin tey jii nag danuy dugg ci sunu ñetteelu njàng ci mbind yonent yi fas nanu yéene gëstu ci lu jëm ci malaaka yi ak seytaane ndax xam nga fu malaaka yi jóge seytaane nag mënunu ko woon a xam sunu ko yàlla waxul woon wante yàlla wax nanu ko ci kàddoom kon nag nanu gëstoondoo ci mbind mu sell mi ngir xam lu yàlla wax ci lu jëm ci malaaka yi ak seytaane nu ngi leen di fàttali ne li nuy jàng ci émission yoonu njub njàng mu chronologique lay doon moo tax émission bi weesu jàngoon nanu ci lu jëm ci yàlla ci boppam ndaxte yàlla mooy ki nekkoon ca njaalbeen ga bu soobee yàlla ci émission bi di ñëw dinanu nettali ni yàlla sàkke woon àddina si ak lépp li mu ëmb wante laata yàlla di sàkk nit ñi ak lépp li nekk ci kaw suuf am la leneen lu mu jëkkoon a sàkk mooy malaaka yi tey amunu jotu jàng lépp li kàddu yàlla wax ci mbirum malaaka yi wante dinanu jéem a tënk dëgg yi gën a am maanaa ci mbind mu sell mi ci lu jëm ci mbindeef yooyu kàddu yàlla dafay jàngale ne ca jamono yàgg ya yàlla muy xel sàkkoon na yeneen xel yu bare bare yu tudd ay malaaka mooy li kàddu yàlla wax bi mu naan malaaka yépp ay xel lañu rekk yàlla def na malaaka yi ñu mel ni ay ngelaw ñoo ñoo koy liggéeyal mu def leen niki safara kon mbind mi jàngal nanu ne malaaka yi ni yàlla ay xel rekk lañu yu mel ni ngelaw ak safara ngelaw kenn mënu ko gis safara kenn mënu ko laal noonu la ak malaaka yàlla yi yàlla sàkkalu leen yaram ni nit nun nit ñi xel ak yaram lanu wante malaaka yi ay xel kese lañu looloo tax mënunu leen gis ñaata malaaka la yàlla sàkkoon lan la mbind mi wax ci loolu dafa wax ne yàlla sàkk na ay xel yu bare bare ba kenn mënu leen wàññi am na ca kaw ci jataayu yàlla ay malaaka yu bare yu ëpp alfuniy alfuniy junniy junni ci dëgg-dëgg yàlla sunu boroom dafa màgg yàlla mi amul àpp moo sàkk junniy junniy malaaka yu rafet te baax am doole ak xam-xam mbind mi dafa nuy woon ne malaaka yàlla am nañu kàttan gu rëy rëy ñoonu ëpp kàttan fuuf wante am nañu àpp ni bépp mbindeef mënuñu nekk fépp xamuñu lépp te mënuñu lépp ay mbindeef rekk lañu kenn rekk mooy ki amul àpp muy yàlla leneen li nu war a xam ci lu jëm ci malaaka yi mooy lii bi yàlla sàkkee malaaka yi ay mbindeef yu sell lañu woon ñoom ñépp ca njalben ga amul woon benn malaaka mu bon ca njalben ga iblis amagul woon amul woon ay jinne maanaam ay rab yu bon yàlla sàkkul woon malaaka yu bon faaw nu denc dëgg gi ci sunu xel lenn rek la yàlla mënula def yàlla mënula def lu bon bu nu ko fàtte yàlla mënula sàkk lu bon ndaxte yàlla ku baax la yàlla mënula juum ndaxte yàlla ku mat la bàkkaar mënula soqi koo ci yàlla ndaxte yàlla ku sell la lépp lu yàlla di xalaat di ko wax di ko def dafay baax mat te sell moo tax mbind mi ne yàlla jegewul ak mbon fenn te du fiir kenn lu bon nag fan la jóge kon dinanu gis tontub yàlla ci kanam tuuti wante bala boobu am na leneen lu nu war a jëkk xam ci lu jëm ci malaaka yi li nu bëgg a xam mooy lii lu tax yàlla sàkk malaaka yi mbind mi jàngal nanu ne yàlla sàkkoon na leen ngir ñu mën a nekk ak yàlla di ko bëgg di ko màggal di ko liggéeyal ci mbégte asamaan ba faw yàlla moo leen moomoon ñoom ñépp ndaxte moo leen sàkkoon ci këru yàlla lañu nekkoon maanaam ci kaw ci asamaan fa gën a sore weer wi jant bi ak biddéew yi ndax xamoon nga ne am na béréb bu sell bu yàlla dëkk waaw ci sunu njàng mi weesu gisoon nanu ne yàlla mu ngi fépp teewul mbind mi dafa nuy wax ne am na benn béréb bu sell leer te rafet bu yàlla dëkk ci ndamam lu rëy yonent yàlla yi dañuy tudde béréb boobu jetaayu yàlla wala àjjana mbaa asamaan foofu mooy fa yàlla nekk ak ay malaakaam yu sell des na leneen lu nu war a xam ci mbirum malaaka yi mooy lii malaaka yi yàlla sàkkoon yemuñu woon am na ay malaaka yu gën a rafet te ëpp xel yeneen yi am na ay malaaka yuy wër ngàngu ndem yàlla ci asamaan am na yeneen yuy dimbale nit ñi ci àddina te di leen aar am na yeneen ni jibril ak mikaayil yuy taxaw ci kanamu yàlla te mu leen di yónni ci nit ñi am na yeneen yu nekk ay kilifa ci malaaka yi ndax mës nga dégg turu lucifer kàddug yàlla nettali na nu ne amoon na jamono joo xam ne lucifer moo doon kilifak malaaka yépp soo xamee nettali lucifer dinga xam fu seytaane ci boppam jóge mbind mi nettali na nu ne bi yàlla sàkkee malaaka yi lucifer a doon malaaka mi ci gën a rafet ëpp ci xel ak doole lucifer mu ngiy tekki kiy melax lucifer moo sutoon yeneen malaaka yépp ci rafetaay ci xel ak xam-xam ak ci doole ak sañ-sañ yàlla mayoon na ko taar ak xel mu jéggi dayo lucifer waroon na jaamu yàlla bëgg ko te déggal ko ndaxte yàlla ko sàkk te barkeel ko lool wante kàddug yàlla nee na amoon na bés lucifer xeeb yàlla ci xolam di bàkku lucifer ne man rafet naa lool am naa xel ku yéeme laa dinaa yéeg dinaa jël palaasu yàlla dinaa toog ci ngàngu nem dinaa mel ni yàlla aji kawe ji man maay yàlla man maay buur bi doy na waar de lucifer mi amul woon dara lu ko yàlla mayul bëggoon na sàcc ndamu yàlla aji kawe ji te du lucifer rek moo bañoon kilifteefug yàlla wante benn ci ñett ca malaaka ya nekkoon ca asamaan tànnoon na topp lucifer ci bàkkaaram ba dëddu yàlla aji sell ji wante yàlla moo di yàlla te xamoon na lépp li lucifer ak ay malaakaam façon yéene def ñi ni ko gisee woon ci émission bi weesu kenn mënula def dara lu ump yàlla ndaxte yàlla xam na lépp bala muy jot sax yàlla gisoon na bàkkaar bi nekkoon ci xolu lucifer ak ci xoli malaaka yi ko toppoon kon nag lu xewoon lu yàlla defoon ndax yàlla mënoon na bàyyi lucifer mi bañoon kilifteefam mu jël palaasam ndax yàlla mën na dékku bàkkaar ndax yàlla mën na dëkkandoog bàkkaaru rëy rëylu ak bañ kilifteefam mukk bind yonent yi dañu nuy jàngal ne yàlla sunu yàlla dafa sell ba mënula xool lu bon te mënula dëkku bàkkaar te yàlla du jox keneen ndamam yàlla kenn la te kenn mënu ko wuutu naka noonu mbind mi wax ne yàlla dàqoon na lucifer ak malaakaam yu bon yi fu sore ndamam lu rëy lucifer ak ñi ko toppoon mënatuñu woon dëkk ci asamaan ci këru yàlla ndaxte defoon nañu bàkkaar ci li ñu bëggoon a jël place yàlla looloo taxoon yàlla daaneel lucifer ak ay malaakaam yu bon yàlla ku sell la te képp ku bañ kilifteefam faaw mu àtte ko gannaaw ba lucifer defee bàkkaar yàlla soppi turam tuddatul woon lucifer kii melax waaye seytaane la tuddoon liy tekki bañaale léegi lucifer wala seytaane doon na bañaaleb yàlla ba tey seytaane ak ay malaakaam dañu bañ yàlla ak lépp lu baax dañu bañ kàddug yàlla di ko weddi ba tey seytaane day xeex ak yàlla tey jéem a yàq ak a fanq jëfi yàlla wante yàlla àttekat bu màgg la te kenn mënu ko raw kon mbind mu sell mi dafa nuy xamal ne gannaaw ba yàlla dàqe seytaane ak ay malaakaam sàkkal na leen safara su dul fay bés dina ñëw yàlla sànni ci safara soosu seytaane ak ay malaakaam ak képp ku leen topp kon mbind mi nee na dinañu leen mbugal foofa guddeeg bëccëg ba faaw wante seytaane nekkagul ci safara soosu kàddug yàlla dafa wax ne mi ngi ci kaw suuf ci sunu àddina te di xeex ak yàlla yàqkat la dafa bëgg nasaxal jëfi yàlla dafa bëgg sànk nit ñi yàlla sàkk te kàddug yàlla dafa nu jàngal ne li ëpp ci nit ñaa ngi tëdd ci loxoy seytaane wante xamuñu ko ndaxte seytaane naxkat la looloo tax mbind mi ne seytaane moom ci boppam day mbubboo malaakam leer day jéem a nax nit ñi ngir ñu bañ a faale kàddug yàlla moo tax yàlla ne maandu leen te foog ndax seen noon seytaane mu ngiy wër ni gaynde gu yëmmu di rëbb ku mu yàpp wante cant ñeel na yàlla moom mi nu jox kàddoom ngir nu mën a rëcc ci dooley seytaane mbind mi nee na dingeen xam dëgg gi te dëgg gi dina leen goreel ndax xam nga dëgg gi la mën a goreel ci pexey seytaane yu soxor yi bu nu fàtte seytaane moo nu ëpp xel wante yàllaa ko ëpp xel seytaane nu ëpp doole wante yàlla ko ëpp doole ndax xam nga kàddu dëgg gi nit ñu bare bëgguñu dégg dëggug yàlla lu tax ñu bañ dégg dëgg gi ndaxte iblis a leen nax dafa leen xiir ci gëm lu dul dëgg ci lu wóor léeg-léeg dëgg gi du neex a dégg dëgg kaani la wante boo xamee dëggu kàddug yàlla gi te nga gëm ko dëgg googu dina la goreel ci dooley seytaane dëggu yàlla gi mën na goreel nit ñi ci feni iblis wante faw nga xam dëgg gi te gëm ko déglu leen li kàddug yàlla wax samay soppe bu leen gëm xel mu nekk waaye nattu leen xel yi ba xam ndax ci yàlla lañu jóge wala déet ndaxte naafeq yu bari yu mbubboo turu yonent jóg nañu tasaaroo ci àddina si bu leen xeeb waxu yonent yi waaye seet leen mbir yépp jàpp ci li baax dëddu lépp lu ci bon ndax xam nga bu baax li yonent yàlla yi bindoon ndax dégg nga kàddug yàlla gi kàddug dëgg gi ndax gëm nga ko ci sa biir xol kon nag mbokk yi fii lanu war a yem tey jërë ngeen jëf ci déglu bi nu ngi leen di jox dox daje émission bi di ñëw ngir gëstoondoog yéen ci lu jëm ci ni yàlla sàkke àddina si su fekkee ne am na dara loo bëgg a laaj ci li nu jàng tey bind nu ci yoonu njub boîte postale 370 saint louis yoonu njub bp 370 saint louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen fàttaliku dig bu neex di nekk ci kàddoom di ngeen xam dëgg gi te dëgg gi dina leen goreel